naqar wu tarlaaxee tax may ñaxtu ak xol bu tàng moo waral may jooytu ndax li nu dal metti na lool te yéeme jar na di kër këri ba mujj biime man jaaxle na te bëgg naa ku ma defal ngir yàlla ñaan leen ndax ñu daldi am alal ndax mbir mi tiis na lool te ànd ak coono jar na di jooy ba mel ni doomi buuna sedd bi daanu yoo ma jooy te xam ne kuñ célibataire léegi nga yooy dëkk di sangoo doole rek di banku xalaatuñoo yewu di jéema sangu lum sedd sedd teewuñu wëndeelu di wër waral yi xool jigéen juñ teelu boole ca naa jox leen ñu jàpp càmmiñ te ñi ma caa xeex ba ñu damm suñ bëñ fun dégg ak wàcce ñu def fa daan ne faax bu nii xaxar ñuy fecc ak di laaj laa boole ca naa fii toj na fii nee na tasar lum gën a guddi rek ñu ciy gën di sawar bu nu gisee jigéen ñu àndi selfie di gëndalooy si na bokkun ma selfie lu am mu jar dàll yu seer ak iphone jigéen gu nooy bopp ñu dig lab iphone boo yeewuwul ñu nax la doo am iphone yàq sa àdduna te doo am samsung bëdi bu seer ak jiin bu seer dàll yu seer ak weer yu seer ak montur ak parfum bu seer daggitu mat laa ak darab bu bënn ca ngay fanaan boole ca néeg buy senn te boo xëyee kafe gu sedd ngay naan te doo ñimee wax lu ko mooy duutoo ko naan te boo doxee ba ñëw ñu naa la reer ba mu nga ca waañoo mbaa laaj ko meer ba sa tilim tilim kenn du ko fóot xanaa nga jéem a jëngu daal di koy fóot ngir yàlla nan jëngu te jéem a denc soxna su baax ndax ca ñu doon ab xej ji célibataire metti na lool te soof na kon nan ci jéem a génn ndax te jot na célibataire bu dee ci waxtu sedd xam leen ne daa nopp lu mbaamu gedd xaadim bajaan moom léeg mu denc soxna commencé noos di dund mbégtam àdduna xaaruma ay saaliw turee ki Seex Jóob ak gaa yi mel ni ñoom ak ñoom Mam Jóob jigéen ju am diine te sell lool te te jonge am filing te jëm yor mooy li ma bëgg ku ko gis nga wax ma ma daa di koy labat di xaar mu nopp ma mën góor yiw naa nangu naa daan doole te lu ma am jox ko ko toog di xoole dinaa ko feccal di ko nax di neexal lu mu bëgg rek ma def ko naan ko muuñal ndax li ma day ci coone ci célibataire ku ma ci génne naa ko may ay téeméer ku may lalal nàpp bu weex may ndékki di saama nday jàmbar ju dee ba dékki mu nuggalal ma ndoxtanaa kay sangu te boo paree nga jël sa mbàjji sangoo te naan ma tons mbaa sëñ bi mbaa ku tedd ki mbaa sama xol ak naa ma yaay gis texe gi su ma gisee soxna su baax te yaatu te mën a togg ceeb ba mel ni faatu cey ku ko merloo naa la dóor junniy kuur kur la mbëkk la tegal la cee xiir ci sama yaay lay njëkk teg ci sa baay aw ma ci mbokk mbaa xarit aw ma ci waay ndax kundubin faatoon sa maam foo gisatee lu ñuul dawal baraw balaa nga cey dee maa dagan bur yalla barke bamba soxna su bax mu yenn ba dina ko jëndal lal bu mak tayatu ak armuwaal bu taru am ay setu dina ko jëndal vaccin ak baseris jesner yu doy ak yi boroodi autorise togg añ lu jëm ya ma koy xolli waasal ko mbolem jinn yi dat ko koy rosil ta sa yu jog di bub ëtëm ba ma yewu lal lal ba balel ko neeg ba bu dee raxas ma gaawtu saaf kafem nga te naa ko bébbe noppalul ndax sonn nga te lépp lum joxoñ danaa ko dagg même sax bu dee pale ba naa ko fëgg def naa fi ñeent fukki bayit ak ñett te way xaajugul ba far ma njett waaw seen mbokku taalibe Xaadim Badiane ndeysaan moo bindoon woyu yi di ci ñaax mbokki célibataire yi rek ñi jéem fas soxna ndax xam naa ni sedd bi metti na lool jërë jëf